baab nashkurukum ala dhalik mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale ginnaaw bi ñu sante yàlla tabaraka wa taala julli ci mawlaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ak ci jëmmam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di beral nag nuyoo sunu njaati gi soxna Maymuna Ndour Faye di ko ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal yàlla tawfiq di ko ñaanal yàlla tabaraka wa taala li mu semb ci kër gii di 7TV yàlla na yàlla defal ko ci lu jéggi njortam muy ndamam waaye di ndamu jigéen ñi di ndamu Afrique waaye di ndamu àdduna bi yëpp allahuma amin mbokki jullit yi tey nag ñu ñëw ak yéen fas yaa fas ak yéen bil munasabati ci li dëppoo ak jamono li méngoo ak jamono mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci weeru caabaan muy weeru baraxlu sama mbokki jaaxanke yi di ko wax sunkari maa konoŋ muy weer wu rëy weer wu bari daraja weer wu bari barke waaye weer wu bari leer comme ci lañu nekk nag ñu bëgg euh, profitoo ci occasion bii leeral leen ci ay ngëneelam ngir nit ñi gën koo fonk ngir ñu mën ci profitoo balaa wees ndax kat bu bu rombee déwén rek lay dellu siwaat insha allahu taala shahru Shaaban weer la woo xamante ne ay barkeem bari na lool yaatu na lool te siiw na yit nag siiw na lool ndax daanaka yonent bi salaay salaam wax na ci lu bari te it nag boroom xam-xam yi aussi wax nañ ci lu bare bari yiw yi ci nekkit nag yiw yu tasaaro la yu lëndi yu baree baree bari tuub nag ci weer wii nga xamante ne moo di weeru Shaabaan maanaam rëccu ci lépp loo xamante ne euh, safaan la loo daan def loolu daal bokk na ci koom yi gën a rëy lépp lu nit ki di di làq ci am koom tuub ci weeru wi moo ko gën a rëy def ci jëf ju jëf ju yiw moo xam ndax danga ci def ay naafila moo xam ndax danga ci bari looy jàng alquran moo xam ndax da nga ci euh, bari loo woor jëf yu baax yi nga xamante ne ku ko def yàlla fay la boo ko defee ci weer wii yàlla dana la ca fay lu ëpp lu mu lay fay ci weneen weer wudul moom maanaam daal weeru promotion la ñi nga xamante ne ñii di jaay Euh, nuñ koy waxeeti euh, crédit téléphonique yeeg yooyu euh, léeg-léeg nga jënd crédit ñu ne la may nañu la cinquante pour cent wala may nañu la cent pour cent léeg-léeg sax ñu ne la may nañu la sax cinq cent pour cent allahu akbar te it niñ la ko waxee noonu lañ koy defee waaye weer bii di weeru baraxlu it nag weer la woo xamante ne boo ci jaamoo yàlla weeru promotion la yeneen yeneeni weer yi la yàlla di fay ci yiw weer wii lim la ciy fayee daf koy ëpp lool loolu nag dara warulu ko lu dul barke weer wi looy war ne ba weer wu weer wu am barke la mooy weer wi nga xamante ne moo ëmb weeru koor maanaam moo sës ci moom rëkk moo sës ci moom rëkk boo ko génnee rek yaa ngi sóobu weeru koor te weeru koor di weer bi nga xamante ne moo gën ci weer yi weeru saabaan gii moo lay préparé tëgg la waajal la alerte la informé la yëgal la ne koor gu mag gi yegg si na de ah tee ngaa woor ci man quelques jours ndax nga xaw koo tàmmal sa euh, sa sa sa organisme nga tàmmal sa estomac xiif ak mar tuuti ngir bu weer wi weeru koor gi yegg see boo ci duggee du la sonnal yenn coono yi allahu ak bu ko defee nga waajale sa bopp tuuti rek entraîné wu tuuti ci weer bi li ñuy wax échauffement ah échauffé wu tuuti rek comme ni nga xamante ne euh, footballkat yi koy waaj a dugg noonu lay échauffé woo ba tàng soog a dugg ci biir team bi ci biir terrain bi noonu la ñuy waajale sunu bopp ci weer bi nga xamante ne moo di weeru euh, baraxlu wi yàlla subhaanahu wa taala nag garanti ci nag way tuub yi ne leen garantir naa leen ne bu ngeen ci tuubee man yàlla leen garantir ne vous en sécurité allahu akbar képp koo xamante ne euh, tàmmal na boppam góor góorlu ci weer wi ak bari lum ci jàngal Alxuraan ak bari lu mu ci woor ak bari lu mu ci naafila kooku day waajal na boppam ba bu koor gi ñëwee na mu waroon a diise ci moom ak na mu waroon a ko waroon a bettee du diise ci moom noonu ndax bettu ko ndax waajal na boppam ci weeru saabaan ci àll Muhammad sallallahu alayhi wa dafa daan woor lu bari ci weeru baraxlu ngir màggale ko weer wii sallallahu alayhi wa ku bari woon lu mu daan woor la ci weeru baraxlu ngir màggal gu muy màggal weeru koor allahu akbar li ñu naan otoraay bu jubee gaar day korne waaw waaw otoraay du ñëw ba ci gaar bi soo ganaan pin pin pin pomp déedéet bu ko jibee rek ci lay kor nañu xam ne kat mu ngi ñëw waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu jubaan weeru koor rek day commencé di woor commencé di jàng alxuraan commencé di naafila ah ngir terale ko weeru koor gi nga xamante ne nag mooy koor gu mag gi jële nañu ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ne naqu abdaanakum bi sawmi chaaban li siyaami ramadan yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen purifier seen yaram yi maanaam na ngeen seetal seen yaram yi eh, ci woor weeru baraxlu ngir ngeen waajale ko weeru weeru koor gu mag gi muy chahru ramadan al muazzam yonent bi salallaahu alayhi wa sallam na amul kenn ku ci woor ñetti fan weer wii ñu ne amul kenn ku ci woor ñetti fan ba noppi julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam lu bari avant muy dog maanaam boo wooree ñetti fan saa boo wooree rek avant ngay dog rek nga julli ci yonent bi di julli ci yonent bi di julli ci yonent bi ba mu bari lool yonent bi salallaahu alayhi wa sallam amul kenn ku koy def lu dul yàlla jéggal na ko ay bakkaaram lépp loo xamante ne defoon na ko ci bàkkaar yàlla baal na ko ko allahu akbar ayoha al ixwa ibadallah intahidu hadihi l fursa qabla fawati awaan ay waay mbokk yi nañu profité ci occasion bi waaye balaa muy balaa muy wees ñun ñëpp dañu ne ñuq ak i bàkkaar ñun ñëpp nag def bàkkaar ci lañu dëkk suñu bët yi di xool lu ñu war ta xool suñu nopp yi di dégg lu ñu war ta dégg suñu làmmiñ yi di wax lu ñu war ta wax suñu loxo yi di laal lu ñu war ta laal suñu tànk yi di dem fu mu war dem lu ne ña nga ca luqu njuur luqu njuur bàkkaar yi ne xus ci suñu kaw waaye euh, occasion gi nii boo xamante ne yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na boo ko defee lépp loo defoon ci bàkkaar ba nga majeur ak te yàlla jéggal na la ko mooy lan mooy war ñetti fan ci weer wi weeru baraxlu ah te bala ngaa dog nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lu baree baree bari yàlla dina la jéggal say bàkkaar te it dina barkeel ci sa wërsëg ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na axbarani jibril anna allaha taala yaftaxu fi hada alchahri talaasu miati baabin min arrahma allahu akbar yonent bi nee na jibril moo ko ko déey jibril moo ko jox information bi ne koy xanaa xamuloo ne yàlla subhaanahu wa taala dafay ubbi ci weer wii ñetti téeméeri bunt ci yërmande ñetti téeméeri bunt yoo xamante ne dafa tëju woon bu bu ñu duggee ci weer wi rek yàlla ubbi bunt yëpp muy aw yërmande boo xamante ne dafay sotteeku ci ummatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ba ci àgg mu ne atadruuna li ma summiya chaabaana qul na allahu wa rasuluhu alam qaala li annahu li ramadan allahu akbar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jekk na ba caag rek ne waaye yéen ndax xam ngeen lu tax weer wi tudd Caabaan ñu ne ko yàlla ak yonentam bi ñooñu ko gën a xam waaw noonu noonu lañ daan tontoo yonent bi yonent bi bu jekki waan jekki rek laaj saxaaba yi ko daan tontoo yàlla ak yonentam bi ñoo gën a xam loolu mooy delloo nañu la bal bi la bal est dans votre camp ya rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li annahu yatashaabu fihi xayrun kathirun li ramadan mu ne ndaxte dafa am ay xéewal yu bare bare bare yoo xam ne fu ne la jóge jógee ñoo taxaw ci buntu ci buntu weeru koor gi di xaar koor gi bu koor gi bu weeru shahru ramadan ubbeekoo rek ñu ne surub ci biir waaye nag ñu ngi daja ñi ngi dajaloo nag ah ci weeru shaaban gi yiw yàlla yépp xéewal yëpp leer yëpp daraja yëpp ñu ngi wootante kenn ku ci nekk di woo sa ñu ñëw daje ci buntu weeru koor muy shahru shaaban looloo waral def ci lu baax am solo looloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne looloo taxoon mu sawar lool ci di bari lu muy jaamu yàlla ci weeru shaaban yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tey inna fadla rajab ala sha'iri suhuuri ka fadlil qur'an ala sa'iril kalaam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na rajab ni mu gën yeneen weer yi mi ngi mel ne ni alqur'an gënee beneen kàddu bu dut alqur'an ah, kon kon loolu am na daraja ndax kàddu yépp wërngal këpp kàddu yi ci gën kàddu gi ci gën a rëy ëpp ci leer gën cee wér gën cee baax ëpp ci daraja mooy gën cee gën cee yëkkatiku mooy alquranul karim Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ni alquran gënee bépp kàddu bu dul alquran bépp wax bu dul alquran noonu la rajab gënee beneen weer bu dul moom waaye yonent bi salaay salaam nee na wa fadla chaabaan ala saairi shuhuri ka fadli ala saairi l anbiyaai waaye rasulullahi salallahu alayhi wa sallam nee na chaabaan eh, nag muy baraxlu wi ni mu gënee yeneen weer yi moom itam mi ngi mel ne man muhammadu rasulullah ni ma gënee yeneen yonent yi ah <laughs> kon chaabaan it mbir la parce que nag yonent yëpp baax nañu ñoom ñëpp ay yonent lañu ay góori yàlla lañu ay nit yàlla lañu ay gaay yàlla lañu waaye nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nag moo leen gën ñoom ñëpp nag min kulli Seydi El Hadji Malick nee na min kulli wasfin hamidin haaza afala tafdilin rajaul baraya yowma musdahamin waaw loo xamante ne afala tafdil la Seydi El Hadji Malick jëfandikoo foofu maanaam moo gën lépp loo xamante ne dañ koy tàggee nit ki naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ne tëll dafay joggati kooka ca loola mooy taxaw ca ka ngeen di tàgg ca loola yonent bi moo koy gën a man loola bu dee dañu ne diw ak tabe ay ak tabe ci alalam bu yonent bi commencé joxe ca dëgg dëgg dëgg dañuy xam ne kële ab nay la yonent bi ko gën tabe waaw Aïcha ne woon na loxo yonent bi moo gën a gaaw ngelaw ah? kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu min arriixi almursalati est-ce que kaana ajwadu naasi wa kaana ajwadu maa yakunu fi ramadan nit ñëpp yonent bi salaay sallam moo ci dàqaw na maye moo ci gën li sëñ mën so dëgg mooy kii maye lu kenn ñemewu la ñaan mais rasulilaay moo daan ñeme lu kenn ñemewu la ñaan waaye boo diw akal lewet bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yegg see di xam ne kii moo gën a lewet kooka ñu doon wax ah bu ñu nee kii ak mën a muñ bu rasulillahi ba jëflante ak yow dinga xam ne kii moo ko gën moo gën a muñ kële ah bu ñu ne ak rafet jikko ba rasulilaay jëflante ak yow nga xam ne moo ko gën a rafet jikko day sax yàlla sax moo ko seede moom mi nga ne seede yëpp ci moom la moom la yem wa innaka la ala xuluqin azimin moo gën yonent yëpp fi aalamil mulki wal arwaaxu taabiatun lir ruuxi wal jismi haada Malik wax ca miim ay fi aalamil mulki kaanat al arwaaxu taabiatun li ruuxihi sallallahu alayhi wa sallam ah wa fi aalami al ajsaami al ajsaamu kulluha taabiatun li jismihi sallallahu alayhi wa sallam hada gaayatul karami Seydi Hadji Malick dafa wax ne ca alamul mulki ba nga xamante ne ruux yi rek ñoo amoon yaram amagul woon ruux yëpp ci ginnaaw la ñu nekkoon ka nekkoon ca kanam jiitu leen ci lépp mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ñu wàccee ci adduna bii it nag ñëpp dañoo jàll ci ginnaaw ki jiitu mooy kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg yowmal qiyaamati bu ñu fa demee it ñëpp ci ginnaaw la ñuy nekk kii bàmmeelam di njëkk a toj mu bàmmeelu Babacar toj ci wet gi bàmmeelu Omar toj bàmmeelu Ousmane toj bàmmeelu Alin toj keneen kuy jóg ngay soog a jóg mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaxu ba ci kanamu yàlla subhanahu wa taala nar a sujjóot yàlla ne ko sigil loo nar def noonu mu ne ko xanaa jaamu la rek mu ne ko lag ma doon jaamu jaamu nga ba ko sal toxta wasfaatu safa tey daal laajal loo bëgg rek ma jox la ko tey yow wàccoo nga ak man ci àdduna koo bëgg a ram wax ma ko ma bàyyi ma libéré ko tey wa awalu man yadxulu aljanna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kii njëkk a dugg aljanna mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne aati baabal jannati yowma alqiyamati fa astaftih fa yaqulu alxaazinu man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne dinaa ñëw taxaw ci buntu aljanna fekk buntu yëpp tëje ëllëg yowma alqiyamati ma fëgg këng këng këng këng këng këng est-ce que ki nga xamante ne mooy malaayika mi saytu mi garde aljanna buntu aljanna ridwaan la tudd ridwaan ridwaan ne kooku di fëgg buntu aljanna ji kumu ah kooku sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ne ko man muhammadu rasulullah mu ne eskay yow la ma yàlla waxoon ne feeg yegg si feeg dugguloo bu kenn dugg bu ma ubbil kenn te dugguloo ba installé wu ba pare salawatullahi wa salaamuhu yonent yi baax nañu de waaye kookoo leen gën de kookoo leen gën de li waykat bi di way naan ko doo ñoom du ñu yow waaw waaw du ñoom te du ñu moom sallallahu alayhi wa nee na ni ma gëne yeneen yonent yi noonu la weeru barax lu gën a yeneen weer wa fadala ramadan ala sairi shuhuri ka fadlillahi ala xalqihi nee na weeru koor nag moom ni mu gënee yeneen weer yi mooy ni yàlla gëne mbindaafoon yi loolu de wax ju jeex nag ni yàlla gëne yeneen mbindaafoon yi <laughs> loolu moom amul amul loolu moom kenn mënu koo mandaxe kenn mënu ko xayma yàlla ni mu gënee mbindeef yi loolu kenn mënu ko xayma neel rek neel rek yàlla gën bindeef yi nga yam foofa ndax laysa ka mislihi shay'un dara nu roowul ak moom qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad waaw yàlla kenn rek la moom la ñëpp jublu mooy xéewal ñépp lii di ci seen biir ndey yeeg jaan yi ci biir pax yeeg jën yi ca biir digg géej ak picc yi naaw ca kaw asamaan seeg dof yeeg jinne yeeg gunóor yeeg subhaanallah subhaanallah ñëpp moo leen di xéewalal jurul kenn nag te kenn juru ko nag jurul kenn amul doom de te kenn juru ko amul ndey amul baay te it ndend nag luñ koy dendaleel ah déedéet amut de amut nawle amut nawle de waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ni yàlla gëne mbindaafoon yi noonu la weeru koor gëne yeneen weer yi tey weeru koor ah marhaban bik ya shahr ramadan al muazzam gis nga moom moo màgg ba boo koy wax sax waruloo wax rek ramadan déedéet da nga ko war a da nga war a eh, takkal garaat bi ko yàlla takkal muy lan muy shahru ramadan bi ko yàlla di sutu ci alquran dafa ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan fa man shahida minkum chahra falyasum wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar allahu akbar chahru ramadan bi ko yàlla tudd sax dafa weeru koor bu la neexee nga jekkee-jekk rek ne safar bu la neexee nga jekkee-jekk rek ne zilhijja muy weeru tabaski bu la neexee nga jekkee-jekk rek ne chaabaan bu la neexee nga jekkee-jekk rek ne rajab waaye weeru koor bu ko sàllalu yàlla sax sàllaluwu ko yàlla sax bi mu koy tudd ci alxuraan dafa ne shahru ramadan gël maanaam weeru koor ni mu gëne yeneen weer yi mooy ni yàlla subhaanahu wa taala gënee mbindaafoon yi <clears throat> ñetti weer yooyu ñu tudd nag muy rajab shahbaan ak ramadaan am na ay xéewal yu ay yu baax baax ak ay leer ak ay barke ak ay may ne yàlla na ko baaxe xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci ñetti weer yooyu le weer wii ñu nekk nag mooy weer bi nga xamante ne euh, ci la yàlla nag di programme nag lépp lu war a xew nag mooy guddi démb gii ah bëccëgu démb muy euh, nis min chaban yonent yàlla muhammad salaay salaam ne na ci la yàlla di programme lépp luy xew nag booba bés bi di dellu siwaat ba mu déwén incha allah ñi war a dem màkka ci at mi ci la ko yàllay programme yàlla nañ ci bokk yàlla nañ ci bokk yàlla nañ ci bokk ci barke weer wu tedd wi ñi war a tukki am ay visa yu valable ci la ci la ci la ko yàllay programme ñi ci war a takk ay soxna ci la ko yàllay programme ñi ci war a dee ci la ko yàllay programme lépp lu fi nar xew lépp lu fi nar a xew ci univers bi ci àdduna bi ba ba bés bi di dellu siwaat Euh, nisfin shaaban ci la ko yàlla subhaanahu wa taala di programme li tax yonent bi sax daan bari li mu ci daan woor duñu ko ne lu tax ngay bari looy woor ci euh, shaaban mu ne mooy weer bi nga xamante ne ci la yàlla di yëkkati jëf yi doomi aadama yi ca aras moo tax damay bëgg bu yàlla di yëkkati sama jëf fekk may aji woor kon nag euh, sama technicien Alsaan Seen mi ngi may yëgal ne li ñu mayoon ci waxtu jeex na waaye balaa may tëj kàddu gi rek damay delloo jukkal waaye sargal jigéen ñi dañu ne euh, démb moo nekkoon 8 mars mooy journée euh, euh, inter journée mondiale de la femme waaye man cent 365 jours yëpp ñoom laa ko attribué amul benn bés bu jigéen am inutile amul benn bés ci cent cinq jours yi boo xam ne bu jigéen manqué doo ko yëg. moom kay day taxaw rek nga xam ne tey baax tey jag na bu taxawul nga xam ne tey jagul may euh, njukkal di sargal ay jigéen ñoo xamante ne ñu exemplaire la ñu jigéen ñëpp war a roy ci ñoom jigéen ñëpp bu ñu royee ci ñi rek àdduna jag parce que jigéen bu jagee àdduna jag mooy charata mooy aawa sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mi jëloon Haajara may ko suñu maam Ibrahima ba mu jur ci ismaila ak haajara yaayu ismaila maryama bintu imrana maryama yaayu isa asiyatu bintu muzahim jabaru firawna ji nga xamante ni firawna di bon bon moom jullit la woon ma nga ca aljanna xadijatu bintu xuwaylidin muy aawa yonente bi sallallahu alayhi wasallam ki ki alam ba ba kenn mënu la ko dara ci alalam ak ci dara jaam surtout umul muminina mi yonent bi ne bu ma fi bàyyeekoo lu leen réer ci diine ji genn wàll gi laaj dañ ko laaj dañ ko soxna sele ñeenteel bi mooy rabiatul adawi jigéen la woon de waaye waliyu la woon daana julli junni rakka gudd gu ne waaye ma ñëw nag ci sunu réew nag Alain Sitoé Diatta muy jigéen ju mën góor waaye nañ jël exemple waaye jigéen ñi ci maam Jaara Buso ma ca Poroxaan waaye nañ jël exemple ci maam Fawad Wele waaye maa ngi sargal maam Assu Jànq yaay Baay Ñas waaye am na jigéen joo xam ne ku ma bàyyi xel la lool bopp bi baax na te ay waxam xam-xam rek lay wax saa bu ma ko gisee ci télé du ma du ma du ma du ma teggi fekk li muy wax jeexul muy Penda Mbow ak kan ak Amsatou Sow Sidibé ñi ay jigéen la ñoo xam ne dama leen di déglu ndax seen talent ak seen xam-xam ak kan ak Mame Madior Boye exemple la mooy jigéen ji njëkk a nekk premier ministre Sénégal waaye aa ah, maa ngi delloo njukkal di sargal nag sama ndey bopp nag soxna mbaa sekk nag elle était exemplaire loolu ñu ko xam ñuy dégg sama kàddu kenn kenn du ma démentir ñëpp dinañ ne wo dëgg la est-ce que kooku bokk na ci ñi may sargal bés ni ki tey yàlla na ñoom ñëpp yàlla nañu xippe aljanna euh, waaye nag duma ma du ma mën a tëj waxtaan wi nag te boole joxewu ma ñaari jigéen ñu exemplaire it nag aawa Jóob sama aawa màkkatul mukarrama dëkk bu tedd balaa ko tudde soxna ami Kole Fall Madinatul Munawwara la ville éclairée laa ko tudde ñaar ñi budul woon ñoom dee naa bu yàgg dul woon ñoom dee naa bu yàgg yàlla na yàlla fay leen gis naa ni ñu ma sëyale ak ni ñu ma muñale ñii daal ay jigéen la ñuy exemplaire ñoo xamante ne bëggoon naa euh, tudd seeni tur waaye bëgg naa aussi ñëpp roy ci ñoom jigéen bu baaxee société baax jigéen bu baaxul société du baax société du baax fa tabarakallahu euh, ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla boole ñu ca xaaj ba jëm déwén lu ñu jaamu yàlla ci weeru yàlla na ko yàlla nangu suñuy bàkkaar yàlla na yàlla jéggal na ko suñuy soxla yàlla na fajal ñu ko suñuy njàqare ak suñuy tis yàlla na yàlla teggil ñu ko defal ko boole mi jullit ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi aqulu qawli haza wa astaghfirullah alazima li wa lakum wa li saa'iri almuslimin fastaghfiruhu innahu tawwabur rahim ngeen doon ci ànd ak seen mbokk al imam Mouhamadou Lamine Gueye min daanu islam assalaamu aleykum